asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki taalibe yi bokki jullit yi yëpp Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi leen di nuyu fu ngeen mën a ne xam ngeen ne bu tedd bu màgg boobu nga xam ne mooy ci fan ak juróom-ñett yi nga xam ne ci lañ jëm bis boobu nag xam ngeen ne saa soo xamee ni ñu ngi koy jub di ko waajal ñaari sëriñ bi dana am kàddu yoo xam ne da koy jëmale ci mboolem taalibi yi deme ko ci mboolem juddit yëpp soññi fàttali sant ñetti yëf yooyu mooy li nga xam ne saa su ne moom lay jëmale ci bokk taalibe yi kon noo ngi ñaan bokk yépp ñu déglu taataan te xam ne lépp lu bàyyikoo ci moom rek jëm si ci nun loolu mi ngi mel ni taw bii di door noppi ci nun noonu la la demee njëriñ la noonu la demee ci ñëpp kon noo ngi koy déglu. moom mi ngi gën a nuyu mbooloo mi yëpp ñi ngi fas yéene teewlu ni ko Moustapha Diatra waxe fan yi ñu jublu ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett nañ fa yéene teewlu bu baax fa yéene jëfe ndigal ni ko diglee woon mu ngi digal mbooloo mépp ñëpp santale ko yàlla santale ko yàlla gi nag jàng alquran moo ci jiitu kenn ku ne ci nun ku ko mën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 loolu moo ci jiitu fan yii yëpp nag itam nu gën cee góorgóorlu def suñu itte yëpp muy suñu borom suñu yënguti yëpp itam nu jëme ko rek ci jàng alquran jàng xasaayit feek bis ba sunu yitte yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku man na nga def sa yitte yëpp na nga ci jiital jàng alxuraan jàng xasida ñi nga xam ne dañuy kuréel nañ ca nekk seen kem kattan ñiy durus nañ ce nekk seen kem kattan lépp lépp lépp lu ñu jubloo ko sant sëriñ santale ko sëriñ bi ak sant ak sant jëmmi sëriñ bi ci boppam sant ko jëmmi mu jooju moom sëriñ bi loolu mooy li ci gën a am solo loolu li ci dolli ko nag ñun ñëpp. gën a jëfandikoo. gën a jëfandikoo. teggiini taalibe. taalibe. ci suñu bopp. ci suñu bopp. mboolem gan ñi fi ñëw. ak mboolem gan ñi fi ñëpp nañ jëfandikoo teggiini taalibe. suñu digganteeg sunu bopp. suñ digganteeg mboolem gan ñi fi ñëw loolu loolu yi lu ci munta ñàkk la ndax teggin mooy li gën lépp loolu alhamdulilahi rabbil alamin ku ne xam na ko ci nituk sëriñ bi ku ne xam na ko ci nituk sëriñ bi moom teggin kon nanu maase nun ñëpp di ko def jëfandikoo ci suñu diggante di ko teeroo it gan ñi la dolli ci loolu nag nañ ko doon waxee ci gannaaw rek or mooy dëkk bi or dëkk bi na ko ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel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 sàmm war mooy dëkk bi dara jiituwu ca ndaw ñi ndax ñoom ñooy yaakaari ëllëg yi te it lu ñu mën a yëngutu yëngutu ci sëriñ bi moo ko gën ci ñoom kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax ñoom ñoo war a ndaw yi ñoo war a sàmm dëkk bi lu fi sëñ bi bëggut lu ñu fi gis war nañ caa def seen yitte te boole koog yar ak teggin ñoom ndaw ñi ñoo war a sàmm dëkk bi ci lépp mën na maa yem foofu Cheikh Bass eggale li ci des li ma ta wax lépp jox nañ ko ndigal mu wax ko nañ góorgóorlu ci cant gi rek nañ góor gi ci cant gi rek góorgóorlu ci sàmm orma ji loolu rek la bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu alhaadi al amin wa mawlana muhammadin al makin wa wa sahbihi zawi ridwaani wa ci ndigalul sëriñ bi ci kàddu yu tedd xam ne yëkkati na ko léegi muy kàddu yoo xam ne matale na sëkk kon liñ ci dolliwaat tuuti mooy fàttali rek bis bi ni ko sëriñ bi waxee léegi euh, altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom lay doon incha allah mooy bis bi nga xam ni ci lañu war a amal màggal gi kon ak sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ginnaaw bu mu ko yëgalee ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi di njëbooru Serigne Touba gépp ak mboolem ñi nga xam ne seen maam ya Serigne Touba moo defaroon bayu ci kenn ba wàcc ci taalib yi nga xam ne ñoo seenu njaboot nga xam ne bis bii ñoo koy def ngir jëfe ndigalu Serigne ginnaaw bu loolu jàllee it mi ngi koy yëgal di fàttali ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal lislaam ji yëpp kon Serigne bi nee na mi ngi leen ko fàttali fas ko yéene ànd ni mu ko daa àndee génn di fàttali tuuti rek na ci bis bii nga xam mooy bisu màggal gi nga xam mooy bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom ndax mooy bis bi nga xam ne bu sëriñ Serigne mu demutoon ci géej gi kon tey kenn du gore kenn du moom sa bopp kon bis bii moo ñu tax a jot suñu bopp kon Serigne bii ne mi ngi koy fàttali ñëpp di xam leen nit yàlla yëpp. bis bi nga xam ne ci leen eh, suñ borom tegum nattu wala ca sabab sa taxaw mu teg leen ko li ci ëpp ci la koy jeexal boo xoolee yonent yàlla Yuusuf am na tom mi ngi tàmbaloon ci gént inni raaytu ahada ashara kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin waaye ba nattu bay jeexit mi ngi jeex ci gént ci firi gént suñ borom doo ko xamal xam-xamu firi gént wa qaala maliku iitooni bihi falammaa jaahu rasul qaala irji ilaa rabbika fasalhu ma baalu niswati lati qataala aydiyahunna ba ci mujj ga euh, mu wax ne qaala ij'alni alaa xasaa'inil ardi inni xafiisun aliim kon foofu la nattu jeexee boo xe boo xoolee yonent yàlla Moussa bi mu gënee àdduna ummi Moussa an ardihi fa izaa xifti fa alqihi fi l-yam wa laa taxaafi wa inna radduhu ilayka wa jaa'iluhu minal mursaliin waaye ba natt bi tàmm da ko ko ci géej waaye bi natt bi jeexit mooy bi nga xam ne firawna sonal na ko fa atba'ahum firawnu wa junuuduhu baxyan wa adwan hatta iza adrakahu al-gharqu qaala aamantu laa ilaaha illa llazii aamana bihi banuu Israa'iil rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam itam bi mi nga tàmbale ca Makka ca Kaaba ga muy julli yéefar di ko fekk di waaye bi muy jeexee ci Fathu Makka foofa la taxaw di wax ak ñëpp di ko dégg ku faaru Makka yëpp ñëw sukk jëblu ci moom Serigne Touba yi yàlla def bis bii ci la nattu bi tàmbale woon mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci Mbàkke Baari mu dem ngir liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi ay at yu bëree bëri nag moo jóge fa ba dem gànnaar ba dem ci yéen ba ñëw njaareen ba am fa lu mat juróom-ñaari at ba ndax nattu bi daa def saa su waxtu bi accès lu ñu ko ma sante ci nattu rek bu del siwaatee ñu teg ko mbooleem lu ñu toll ci nattu ba ci at mujj fa nag sëriñ bi du ko fooglu ak di ko waajal suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ci des ba adduna di tukki nan nattu yi daa demee rek pay gi luñ la ma jox ci ci ci ci ci xéewal rek dañ la dañ la kon bis boobee nag ci la Serigne Touba digle ci 1918 ci la xëy xam ne na suñ borom xamal ko ne natt bi jeex na bu agsiwaatee na ko ci ñëpp sant la yàlla li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon loolu mooy bis bii nga xam ne ci lañ bi ba yàlla def mu agsi fii tey mooy biss boo xam ne nag lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee kon sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalibe bi yëpp ñu gën koo fonk te xam ne boo xoolee ci mbindi sëriñ bi fu bari sëriñ bi wax na ko fa fustu la daa galwaa waa inda ba afali ma bihi uniru kulla ma afali ci la suñu borom leeral mboolem palaanet palaanet yëpp ci àdduna waxaat na it ne alaana lil quluba quluba wal abdaana man qaada lii fii baladil buldaana kon wane na ne màggal gi àdduna sëpp danañ ko ci aussi kon loola rek mooy li agsi kon sëriñ bi ne ngi ci soñ ñëpp ngir xam ne màggal gi moom borom defaral na ko boppam borom aajo ju fajoo lu tàbbi ci biir ñaan ko nangu la na mu ko bëggee saa su accès ndax waxoon na ne àjjana amuti bis waaye buñ demee ba ëllëg képp koo xam ne daa nga sonn ci sama bis bii bu accès waatee da ngay xéwal guddal ko ci yow kon nag loolu lu ci waay def rek sabab mu koy defal kon nag ñu ngi ñaanalaat bu baax sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa te itam jëpp weesu liggéey sëriñ Tuubaa loo ko mën a ñaan loolu loolu ngërëmu Sëriñ Tuubaa doo dégg mu ne la amiin ngërëmu Sëriñ Tuubaa rek ko ñor kon nag ñu ngi koy ñaanal ngërëmu Sëriñ Tuubaa loolu yi nga xam ne kenn nattable ne am na ko yàlla na yàgg lool ci barke Sëriñ Tuubaa ndax lu mu fi gën a yàgg rek mu nekk sagu yoonu murit lu mu fi gën a yàgg mu nekk sagu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yasminillahu inda jeewali إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سند